dafa xaw a yàqamte fii euh, waaw ñu ngi ci ñu ngi. ñu ngi ci waajal toog ngeen bi tey bunt kër Ousmane Sonko. si di ko gi mu doon euh, lieu bu symbolique. Ah, ah. merci président. Oh ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay. am kontante te campagne commencé sunu campagne. alhamdulilah rabil aalamiina am nañu bésu élection. loolu la xale yi doon xeex. kon bés bi dañ leen koy delloo ñoom la jeunesse sénégalaise qui s'est battue vaillamment voilà am ñu ci ñàkk seen bakkan ñooñ duñ leen mus a fàtt dinañ leen continuer di ñaanal voilà kon euh, voilà absolument mais parce que Ousmane Sonko aurait dû être là c'est évident il aurait dû être là il aurait dû être candidat loolu la yàlla dogal euh, dañuy ñëw rendre ko hommage ak famille am nuyu leen ziyaare leen voilà dal di démarrer la campagne de Diomaye président di ñaan am am am ci kontaan te am ci kontaan te. ba ngeen gisee nga xam ne moom mooy présence ndaw ñi lan la leen gën a def. waaw mais ndaw ñi ñooy Sénégal. 70 pour cent population Sénégal amuñu 35 yéen ñii la kon ñun bu nu taxawee c'est pour vous voilà ñu am kontaan na gis leen suñu wet. suñu kanam eh, voilà parce que yéenay suñuy doom aussi. l'espoir voilà incha allah rabbi ñu doon Aminata Touré ñu gën xam ci muy Touré muy ay kàddu yu njëkk rek par rapport ak lii di euh, démarrage campagne bi moom jàpp fii leen lu dul euh, euh, rendre hommage Ousmane Sonko ndax jàpp na rek heure bi war na fekk Ousmane Sonko fii mu nekk ak ñoom kon donc moom jàpp na démarrage campagne bi ko defee si gundu kër Ousmane Sonko dafa doon loo xam te ne hommage la rek njukkal bu ñuy rendre kii di le président Ousmane Sonko kon donc mu doonoon gis Aminata Touré moom nag moom am na ndombal ci Euh, coalition bi moom mooy superviseur bi mooy saytu lii di campagne bi gannaaw ba ñu tàmbee euh, Moustapha mu doon directeur de campagne il faut le rappeler aussi tamit euh, structuration wu lii di lii di coalition bi Moustapha Girassi mooy directeur de campagne bi amina Touré moom mi dugg léegi gis neen ko mooy superviseur bi ah kon donc démb gis neen cérémonie de présentation projet bi yëkkati na fa ay kàddu kon dañuy woy rek xool ah daanaka leader yi ñu ngi doon ñëw ah benn par benn daanaka ñu ngi doon seen sànq dàmbooj waaye dañuy xoolaat ndax dinañ ko mën a repérer am na ku génn am na ku génn ñu xool euh, kan la ci leader yi am na ku génn ah garde corps Sonko yi ah ñi ñooy garde corps Sonko yi garde corps Sonko yi ñoo génn ah ñoom garde Sonko yi ñoo génn daanaka dafa mel ni dañuy tàmbali lii di caravane bi tàmbali lii di caravane bi garde corps Sonko gis ngeen ko ñu ngi noonu di génn di dem daanaka ah mooy cortège bi ah ñoom ñooy assuré lii di sécurité bi na ne léegi ñu tàmbali daanaka ñoom ñooy njëkk a xàll yoon bi assure lii di sécurité caravane bi ñoom nag ñooy génn peut-être dañuy dem rejoindre seen i I, uh,